this is going to be a very short life pour ma dalal xeli nit ñi ñi seen xol yi dina gën a lëndëm ñi seen xol leer nag ma gàgganti leen rek wan leen ne yoon biñ jàpp fala ku mer kalaamel kii ci kaw man ni ma mel nii laa mel duma ko change for all the tea in China God knows that yow soo ma meree si ni ma mel dinga soona man duma la mere si ni nga mel man ku nekk laa mun a àndal waaye nag bu ma àndaa yow ba gis ne bokkuñ fuñ jëmuwaay damay dellu gannaaw man noonu laay àndee ak nit duma la mere duma la dëkkal foo dëkkut duma la signalé duma gis dara ba foog ma tontu la ñëw pour dàggasante déedéet tey nag dama seetaan euh, live yi Fatou Danso because ñu ngi ma koo seen di ma ko seen di ma ko seen ne ma sa sista daf doon def live tudda na la tudda Seynabou Mbaye ma ne ok lii is overdue foog ñu leeral te comme dafa def live di leeral ba aussi suma tur laaj na jo rafet na rek man it ma génn na nee ba àdduna di tukki Fatou Danso su ma doon saaga bay sulli suma wajur ci bàmmeel bi di ko teg billaahi duma ko tontu te saaga woon ma nag ma Fatou Danso we have this relationship su ma ko géjee déggam ma seet ko su ma géjee déggam mu seet ma kenn musta déggal sa moroom wax bu ñaaw kenn musta yóbbante sa moroom wax bu ñaaw waaye I think ne am na luy lëndam ci xeli nit ñi te leerut let's start with Sainabou Mbye na ngeen def naka ngoon si mbaa yéen ñëpp a ci jaama as you guys know parce que xam naa ne dëkk bi dafa am loo xam ne nanguwuñ ko mooy ñaar ñu gis ñu ànda man kenn mutuma buur ku dul yàlla kenn du suma seef man awma seef bokkuma ci groupe ragaluma kenn kabu dantuwuma kenn dewma kër kenn kenn jiwut suma kër yàlla xam na ne duma téyal benn jeeg saagam man gisal di Queen of England sax duma ko téyal baak waxuma laa jeeg yaa xam kooku miina nga wala koo ba baraajo nga man duma kook sóoru suma maas dafa neex nag ñu ànd di ree ah, Fadden so make na a comment about ñi nga xam ne wax na ba wax suma tur ñi nga xam ne lu nekk lañ wax bu mbay dañ ko éenee prison Sainabou Mbye moo ñëw ñooy wine and dine wrong sis I tell you about me jaamu yàlla rek laa bu xeebu nag li yàlla bind maa ci gën a xeebu musuma lijjanti bu mbay man Seynabou mbay ñiy dem bitigam di nataaloo di dem seeni kër muy gaara di leen nataalu musuma dem kër Seynabou Mbaye nee naa leen su ma gisee bu mbay dafa jaaree ci wujaam moo tax maa bu ñu am contact bu def live di ma ci gërëm ba tagal ma suma jëkkër gi xale bi duma gën a gore de bi Seynabou génnee def live hey Mouhamed sa yel bunta boobu dama dama def live ma nit fekkasi ko parce que dafa oote jàmm bi foo ma def loolu seena bu dugg na prison ba génn musuma autorisé Seynabou dama dama waatoon ci yàlla ne duma ma autorisé Seynabou te taxul lépp lu ma war a def ci live dama ko def ba mu jeex te gis nga loolu xewoon ci time yi Seynabou bu xewatee ma def lu ma musut a def def lu raw la ma defoon ci bu démb ba hey man nee naa leen yàlla rek a ma doy buur yàlla buur bi rek ma doy buur keneen mutuma buur man néew kenn deyal ñu jullee la néew ma kenn yàlla yàlla nuyu na la te gisuma ko seyna bu mbay musuma ooturam musuma lijjanti seyna bu mbay wujaa ma ñëw indil ma taraanga bu ma doon wax seen Mohamed jubóole bu mu jubóole boob ak seyna bu ma taxaw di ci gërëm may eh, Mohamed bala leen ma one minute ki ma yoon for the first time nag one thing about me mooy duma dee leeral bugguma leeral man dama ne whatever you believe in just get on with your own flow man duma tàngul si webi kenn waaye tey dinaa leeral parce que xam naa ne ñu bare ngi naan waaw lutax muy faral seen man am na ñu di ma wax ne bul waxate seyna bu mbay seyna bu mbay am na amna ño xamne dañ ma follow because ma ngi live fal bu mbay si programme am man yeen seen gënal daf ma neen man yéen ma mum man ma am suma soxla si di dox xam suma soxla si seyna bu mbay nekana whilst ma ngi explain ma am a call what's this li wax mooy musuma Ousseynou man li ma doon xeex dama ko gëm te yéen ñi ma kool di ma wax ne waruma wax a bu seen yoon nekkul si lu ma wax a Seynabou lu ma dul wax a Seynabou nit ñëw na ma ba suma biir kër mu toog ne ma Amina ma ne naa mu ne ma xanaa xamuloon ne bu mu ne dafa xaar ba afta xewam bi mu tapaas la ngeen xuloo ndax yow yaay number one enemy in the Gambia yow loo ko wax li nga ko wax kenn musu ko ko wax maa la ko ah mu ne ma waa ma ne ko sëy na boo wax loolu mu ne waa ma ne ko bañ àgg ci loolu waaye for naaw li ma tontu borom mu ngi toog fii si suma saal bi yàllaay suñu seede ma ne ko for naaw li sëy na bu oote lim tëggalaay fecca muy jàmm jim oote gis nga one thing about me ay duma jaami kenn waaye suma soxla rek laa ko laa xam fu suma soxla nekk su eboon ñu reyante tey ba ëllëg soo amee loo xamante nii dama ci am suma kot nga oo ma ne ma lii mooy sa siyaa ma rëkkal la life bu ne muut dem toog this is how I roll if the money is right I do what's right yes xuloo yu maa fàddan so yàlla xam ne suma sista la xam naa ne sax waxul dara lu jëm ci suma si suma tur waaye dina rafet rek ma leeral man bi ma bàyyee Seynabou Mbaye lépp lu ma ko bëggoon a wax damaa toog ci Facebook bi wax ko Seynabou su ma defee de war na maa def non. Why, based on the fact me dama fight on in what I believe in man dinaa xeexal di innocent to my last bread. ba keroog may jël suma last nooki képp ku innocent ma xam la xaw ma la ñu teg la tuuma ma toog pour xeexal la man maay def loolu man kanama dee xeexal man su caaka coolee may xeexal ñëpp waaye man kenn du ma seena Seynabou Mbaye nag dinaa leen wax leen ci affaire am jàmm la tëgg dama koo féeca comme jàmm la oote tey jii rek dem naa ci moom jënd 20 bags of onion ñu indi tama gi tama gi ñoo man a ko tamaal te ñooñu dañ doon romba ñu tama xaalis ba ma ko fee ci onion bi yëpp la baatarawaat benn Seynabou du suma xarit get this straight Seynabou du suma xarit Seynabou du suma àndandoor Seynabou bu are not bodies boo xam ne dañoo demalante di ñëwalante te su ko bëggoon nag ñu def ko parce que gannaaw ay jàmma yéen ngeen kenn du am jàmm nit ñi Iran ak Irak dañ mujjee toog ci taabul naan ko fi waxtaan mu jeex soo Seynabou su bëggoon jàmma ji sax baawaan saawaan ma fekk ci ko ba jàmm ji saawaan hey I'm a contractor I do and I never come out as su dut loolu na dama la ne sëy na bu jàmm jii mu tëgg man maa ko fecca tey dem naa ci moom ñu tama ma life jënd twenty bags of onion ten thousand eight hundred dollars ma dellu si waat ne muut suma kër sëy na bu dawut lu ma neex utuma lu ko neex musuma lijjanti sëy na bu li nit ñi di dem dina taalu di génnee lii eh, ay le motif yépp fekkiwuma ko palaasam te xam nga ñaata a kool ne ma dañ bugg a jàmm sa diggante Seynabou may leen man jotewuma Seynabou lii ma believe woon laa doon xeexal te dama si doon teg suma bakken dem ba jeex gis nga lii ma xeexal boobu Keita beneen yeen laa wax de waxuma Gambien bu amee di seen problème ma jóg xeex ko ndax dama ko xeexal Ousmane Sonko suma président bu sell boobu bur bu seen ma rëkkalaay xeexal ko innocent tam bañ prouve ko innocent waaye yéen Gambien yi yéen ngeen ne kenn du am jaamatam pour lan Seynabou mun naa am sax dafaa ut lu moo fayee koo ci man dañoo xaar ba àgg ci boobu waaye sëgam fayee ko wut lii muy oote di jàmm dinaa ko ote lool dafa gis nga li ngeen mënta xam mooy muy Seynabou muy Woudiam ñoom ñaar ñëpp a am ci man man jëluma kenn faral ko waaye dama ne Seyni suma doom la Seynabou nag anti ami laa wax kële momi laa wax Seynabou anti ami bés bu ma Seynabou gisoon romb ma nii di ma xool ooyu ma keroog bu ma rombee bu ngeen jaaxle waaye xam ngeen li ngeen bugg a tam duma ko def ma toog fii continuer di reyantee Seynabou si kayit boo xamante ni jooji si close nañ ko sign ko seal deal Seynabou di toppatoo soxlaam boobu di toppa soxla soxlaam ngeen ne man ma toog fii enu toor gu ma yàlla tegut di ko noonu ba defaluma ko benn mindeef duma ko defal benn mindeef gis nga jàmm ji Seynabou oote si laa koo fekka si képp koo xam ne nag neexu la ah nga seet leneen loo def waaye xuloo yu ma de at bii ñu toll nii xuloo yu ma ak anybody te duma xuloo ak kenn gis nga su seena bu mbay miy jógoon tëgga live di ma saaga xam nga lu ma koo def dinaa ko ne waaye rakka ndax doom suma lu xew lu wanxa di dox noor parce que maak yow diggaale wuñ yi karaay ma amoon nga xeex ñi la believe yoo sa side des foot fa yoo side And I believe in the other side. And I fought for it as well. Duma musa mandu, how ma mandu, I don't know the opposite of mandu. Bes bu taxawate ma wala lu ko raw. Dama ne ragal judu wu ci, judu tapet juddu wu ci, kuy wax delu Ku am delu judu wu Li xewon ñu xex ko Group believe in the truth. Bu xewate ma why not? su ma ko xeexee ba mu jeex ay muuf man dëkkuma si bitterness man añaanewuma kenn xoolaluma kenn grudges God knows that lépp lu waay am rek éene naa la ko lépp lu waay am éene naa la ko is not my friend she's not winding and dining with me and if she wants it we might as well arrange it if she wants to go out on a dinner with me I will definitely arrange that if she wants to go for lunch why not waaye man topp ma bu ngir li ma am su bu amee soxla nag ne ma ma defal ko lii lii mooy suma kot ma def ko ba mu mut du ma ci desal dara affaire bi lan la bàyyi leen weer ci benn fan ñu bàyyi toppante bi gis nga li ma doon bilif tey laa ko gën a bilif li ma doon xeex ëllëg ak tey jii laa ko gën a xeex ma dama ne man maay xeexal ñépp te suma bos su jotee maay xeex ñaata nitama saga ñaata nitama moolu ñaata nitama yobu serign man yobu nañ ma fi serign social media ñëpp di tok di setan kan mo takal life ne dimbalal len doomi jambour ji yaay jambour ngeen bayiko free ko from this evil mama sali jaata wa legi man ma don xex ak cause cause bi jeex be yalla def ci jamm site yep am jamm ma tok wara fiix enjoy suma enjoyment ngeen ne lol tam du ci dal Why de dàgga sente gis nga wa ah, liñ ma wax suma biir kër ne ma mu ne eh, su xewam bi passé dina la wax parce que yow number one enemy in the Gambia yow waxut amut ko waxut amut ndax ku def lu ne wenga ñu waxal la lu ne wenga I don't hate the girl and I don't have a problem with her either the problem was what I I believed in nga indil ma caajo fan bi nga caaj ko caajut waa jëlal damaa def live bul feeñ su fekkee ne da ngeen foog ne dinaa toog fii di reyante ak Seynabou Mbaye benn du suma maas du suma morom du suma xarit du suma demandoor waay su ma koolee dinaa ko uyu su ma ko koolee dina ma uyu su ma ko message mu uyu ma nit ñi dañoo am soxla si Seynabou because gis nañ ma ma defal ko live si programme am bi Amérique Europe del call mi dama tëdd sañu ooma Amina ah, lii ak lii lañ bëggoon si Seynabou ñu ngi koo call amuj dama dee call Seynabou straight wax leen ne man añaanewu ma mindeef ci kaw suuf ne ko diw de mu ngi laa call amu mu ne lii ak lii la bëgg ma pare ci teg suma téléphone bu ñëwul suma kër waxtaanuñ demuluñ fenn fu mu ma gis ne ma anti Amina ma ne ko misis yee ñu kaf ree dem léegi lan ngeen bëgg damaa dugg ci bitiki yàlla rek laay waxal ay mat dañ maa wax ne Amina jëf gis nañ ni nga def eh, sa diggante seena bu mbay bi mu ootee jaama fekkasi nga waa léegi man su seena bu ooyee jaama moom i xale man fekk wu ma ko xanaa kon man duma jullit nee naa leen man xar laa mun naa tuddamu tobaski man bitawuma duma dee ak bitanees duma fi nekk di tongoo di xaasi di yaa ba keroog may dee duma ko def lu ma am pour waxal nit ki nag nit ki laa ko waxal ma dem toppatoo suma soxla dama fone ne ah, Sister Fat suy life about bu mbay I shouldn't be the example of it ñi dem ci bu mbay bari nañ waxuma ne waruma oo hankay war na ma oo because suma sister la waaye dañ nekk ci jamono boo xamante nii nit lu mu la bëgg a wax dafa ut fu mu koo jaarale waaw man na kulooyu ma xeexu dàgg santewu ma yóbbantewu ma wax Sister Fat God knows that I love you and you know that last week rek bi ñu waxee dama ne la sister yow bàyyi nga sa sister you know I love you that's what I said because aw reason pour ma xulooyee yow wala yóbbante la wax man soo waxee dama leen wax Facebook bi maa bintu tëjal bunti néeg bi waaye tëjal bunta bi please baalaam dama lay ne man suma e eh, benn nit mo day entertain si social media bi moy Fadane so su defé live dina ko deglu di rebe bu bugg a man yaay bima ma jur munumaa sakal jar, nga jaar ak do fi jaar man ken duma waxal man su ma ndey ak suma bay nañ xulo nit ba tongo moom su ma bëggee wax ak moom man na xulo yow bañ rayante nga am soxla ne dama am soxla ci yow li la bëgg nga defal ma ma defal lako xam nga li tax because man bëgguma nekk a sore loser man ay lu ma dugg rek dama bëgg ma get out of it being the the winner man I am a fighter man ku ma xam-xam ne man lu ma suma bët yi may suma fit bi ñeme na ko waaye dama ne dama toog ba xam ne yenn yenn débat yi amaluma njëriñ bu Mbye nag xanaa mu def ma noonu toog Facebook def live di ma saaga te boobu sax duma ko tontu ndax man lépp lu ma waroon a proof proof naa ko pare amatuma dara lu ma proof tëgg naa fi làmba gu nekk ci social media du góor du jigéen te man képp ku mu sa songa cotta naa la daaneel la ci suuf awma cour proof nothing to nobody I don't man nobody is my boss awma waaye bari naa ñu maa rus bari naa ñu maa nawloo ñoo xamante ni su ma jàppee ñu ne ma bàyyil ma bàyyi gis nga ki ñëw suma kër ne ma sëy na bu mu ne waaw yow yaay big biggest enemy in the Gambia yow wax nga ko lu nekk moo tax soo xamoon lim laa lii dafa naxante yow ba programme bi jeex rek dina la def loo xamante nii xam nga kuñ ne suba mu taw nga ragal a génn dafa fekk ñaari yëf nga ragal ndox nekk xorom wala li nga sol moomuloo ko singaar si lañ naan suba day taw rek nga ragal waaye man ragaluma li ma doon seena bu su ootee jàmma oo ma ci jàmmaam ndax seena bu programme bi nit ñu bari nañ bi ma kooyee daf ne ma anti Amina dama bëgg nga organise du ma su ma meroon sax damaa bàyyi li ma jàppoon ma organisel ko parce que bésam la te bés du tuuti boroom lay tollool moom li lim am ci xolam moom moo ko xam man si suma xol rek laa mënumaa jooj kenn si li si sa xalaat waaye man si suma xol man enewuma ko lu bon xex na la ma doon xeex démb tey laa ko gëna mëna xex a xeex bala am ci xelam lim bëgg def ne dina ma def loo xamante nii loolu is abtuxaa dañoo xaar ba bés ba jot waaye sigam bés ba jotul xuloowuma ñiiroo waayuma duñ ma àtte xuloo ak xoolal xuloowuma ak benn xale di ko may bës seena bu nag jàmma ji mu oote jàmma ji laay oote ba xaj tëdda génnam tëdda ma ne du ma xuloo seena bu mbay laa seena bu du suma moroom suma rakka la suma rakka laa doom aw ma doom bu am tàtti yees waaye suma doom su taxawee su su ko seena bu di mag tuuti la moo doom kon jàmm jim oote dinaa ko tëgga te man xam nga man fu ma utee ak ñu bari man su ma doon reyante yow sax duma toog yaaxal te ku ñëw si man di la yaaxa du fa jëlee lu ko neex Seynabou nag dafa oote jàmm dinaa ko fekk si jàmm de Seynabou dinaa ko fekk si jàmm xoolal du damaa def ngir ragal bu soo buggee ooteel tama ooma ma sol bee ca ñëw tamal la ba Kolda dinaa ko fecc ba Kolda du dama ñàkk fayda du dama ñaka jom bi ñoo oote jom jënd naa ci kilo ak libar yàlla xam na ne li ma ci am dama ko sangoo waaye xam nga lu maa bañ ñu ne xale bu ndaw bi oo na la ci yooni islam jël leen rek mu dem na jël xale bi ona la si yooni islam nga bañ ba tax aduna yëp dima nono noonoo duma ko nang jamma jimma o sila si laa ko fekk duma gën a gore mukk parce que bi xex bi jotté luma ko waxut amut lolou ñep dégg nañ ko man nobuma maangi ni ku maangi ne fang kuy nobu du ko wax man dafuma ben live di nobu ci compte ken suma compte la don live lepp luma wax fi la ko live do i apologize of course not i was fighting for a cause that i believe kon senabu buma oyé ci jamm mo fekk ko ci jamm kan bi lan la kan bi lan la lan moy problème bi légui Seynabou xale bu ndaw bii fekk ma mag bu toll ni man ne ma kaa ñu jàmmoo ba dugg ci suma gay bàlla mi ci ji mooy mii nga xam ne fuñ ko ooyee ma ndaat saay di baatare mu dugg ci suma 18 jëkkër eh dama ne su ma éegoon sax keroog ma wàcc bu nag lenn laa am pour euh, advice la as suma rakka jàmm ji nga oote nañ ko dawal man de xaw ma keneen dinaa rus ma toog ñu naan nga naan jàppal ñu naan bàyyil ñoom ñaar la dinaa ko rus parce que li ma waroon a wax yëpp wax naa ko li ma waroon a def yëpp def naa ko li ma waroon a xeex yëpp xeex naa ko léegi lan laay xeexateeg yow you've paid your dues to society nga génn ñëw di liggéey di employ ay xale yu ndaw ak i mag di leen fay am sa programme sa programme bii lu ma ne defal nga def ko te doo ci boole wax su ma ne la ooyal kii nga ne ma waa baax na nañ ko oo su ma ne la defal nii nga ne ma def ko lu mu guddi guddi ngeen ma anti amina lii laa bugg a def loo ci xam hey doo ma gën a gore yéen ñi bugg nag ma continuer di reyante su ma waree reyante dama doon bées loolu on somewhere ne na Seynabou def na ma dara wala seyna bu jël na téléphone gis nga su nit ñëwee ne ma seyna bu moo la wax lii ak lii ak lii du ma gëm waxi nonsense ndax waxi picca laa doom bés bu seyna bu nammee pour wax ma dara moo maa kool am na suma nomba am naa nomba anti Amina lii ak lii ak lii ba ma dégg ma teg te man du ma record duma ma ut witness man daf laa óor ne man boo ma màttee dinaa dagg sa yaram waaye fekk seyna bu defut loolu doo leen ma àtte ak Seynabou du duma xeexantee bu di live ma tekki mu live mu live ma tekki ma live loolu pare naa ca ca ba ma xeexee li maa xeex ba pare Seynabou musumaa xam musuma koo xam fitna moo ñu boole ñun ba ku nekk mun a xam sa feesi moroom te moom su defutoon live sax di si def live di ma ci wax dara ba di ma ko taak because of bu jaam na suma kër yàlla mu ñu tiim xam ne ne Sainabou dina dëkk Gambie ba génn duñ tasee duma tasee parce que bokkuñ jëmu waaye bokkuñ euh, parce que xale la am na oon kabudoo man awma kabudu man suma jëkkër rey suma left hand ah, side mooy suma right hand maam moom ñooy ànd 50 50 50 50 dem 50 50 ñëw muy xon rek xoosi wu ma xuuy ma ñeex dew ma xew yi kenn xew yi maa dem dama seet xew yi ma bugg a dem ma dem ñaata xew lañ maa yëgal duma dem li ngeen bugg a ma def nag duma ko def mënuma dëkk ci xeex ak reyante te geer gu nekk dafa am fu moo em fitna bu nekk dafa am emuwaay ak daluwaay man ma ne I've paid my dues in society I am not fighting no more with anybody I am not a soldier My guards are down. And there is nothing in a million years that anyone can say about this issue that will make me hate Sainabu Mbaye ndax Sainabu li man mënuma mako, moom man maa amut lu ma ko waxul ci suma live dañ daan yàkkamtee life ngeen ñëw ñun ñoo féministe yi ma tuddee leen feminist, luneka lu nekk tuddee naa ki ko ci xeex kees boobu kees boobu jeex ñeneen naa continuer xeex pour lan maa kanay xeex léegi kan laay xeexat ndax dama war a noonoo nit ki ba xëy dee dem safara duma ko def su ma la tooñee dinaa la baalu soo ma baaloo man baalu naa la soo ma baaloo man baalu naa la soo ma tooñee nga baalu ma dama laa baalal ay doon care who you are nee naa leen ñaari nit laa dul baalal ci suma kaw àdduna ñaari nit ci kaw suuf ñoom laa dul baalal mooy ki ma yóbbu sëriñ ak ki ma sosal su dul loolu keneen loo ma munti def jéggal naa la loo ma waxal jéggal naa la waaye fexeel ba wax ji ngaa wax di daj di dem di ñëw bu wax ji teewee rek on autorité keroog nga xam ni doom bi bootee ndeyam yéen nag li ngeen bugg a dafa yomba du yéen du keneen ku nekk dangeen ngeen bugg di ko waxal kan la war a àndal ak ku warta àndal yéen daal yéenay maas noon gi sorry but that's not how I operate man, I do what I want, when I want it, how I want it, without feeling guilty. And really, it's my place on it. I am doing, um, I am glad ne it's happened parce que jàmmal la oote dinaa ko si fekk si moom mi xale su mu nee am ngor am jom gu mel ni jël téléphone gis nga liñ ma wax fi ne ma waaw mu ne after xewam bi dina la def loo xam ne parce que yaay number one enemy su ne number one enemy am la ahankay mun na koo wax parce que lu ma ko waxul nag amul waaye dafa jël téléphone am oote jàmma def live fam bu bu bu bu bu jàmmoo ak reeyam xam nga ñaata nit a ma kool ne ma seena bu live fam bi féek la reeyam yi dafa bari torop nit ku dee ree daf dee fake do I give a fuck no as far as def na live wax ci jàmma oote jàmma mu taag ma ko ma fekk si ko jàmma jooyu dama eewu ci nelaw sax toog di naan suma ko fi ne ko seena bu yow nag dangaa ngéwéle waaye mënuloo loolu passé moom anti ami dama la bugg a yëgal programme waaye bugguma lii ak lii dama bugg balaa ngaa wax ne lii ma ne ko non yu non you know what what happened in the past stays in the past ñun we move garaari kenn nenuñu lan nga bugg a ma def mu wax ma xewam su ma demutoon gambien yi ne dama sew ma dem ñena ji di ma kol waaye ñooñu duñ ma kolat Amina lo li ci seynabu seynabu is the this You you want to hate seynabu hate seynabu you have an issue with seynabu do it xamna ne du suma morom bo xamne dañu andandor di dem bijak di dem restaurant together wa jamm bi ma ordina ko dox de setuma kum neex nak wala kum nahari I am not looking for validation from any of you hey nobody runs my life I am my own CEO I run this shit for myself. Without nobody's okay. You don't need to love me or like me to know what I'm doing is right or wrong. I am old enough and vaccine enough to know what I'm doing is either right or wrong. So do not judge me because of I want to do the right thing. Aduna gauna, na tanka, ninyangé de like like flies duma dee ak benn bitterness in my heart duma dee ak tongoo ci suma xol bi ba pare si weeri koor lañ ñëw ay I want to start fresh just because wax I want to start fresh but that doesn't give anybody the opportunity to be to be attacking nobody no li ngeen bëgg nag duma ko def duma xuloo duma xeex duma ma dàgg sant képp ku jël téléphone am oo ma ut a jàmm ma ut jàmm bendaat saay yéen ak maa dégg soo noppalaku leen I answer to no one aw ma groupe aw ma kabdu naa bokkaa yow ndeya baay nga xuloo nit ki doesn't miin dama war a xuloo moom te man su ma defantee nit ki ba reyantee moom doesn't mean ne yow danga war a reyantee moom du ma ne la bàyyil du ma ne la jàppa man duma ma wàlli mbay thank you Mike thank you so much man Walimbai. so whatever's happened between yous try and sort it out my business is my business I am not trying to entertain no no circus monkey here I do what pleases me Linga nga foog ne moo laa that is up to you man lima ma kontaan man ko def car I am good dew ma kër ken kenn ñëwul suma kër and I live a fabulous life I am not rich God no ne man aw dara am na yàlla ak suma jëkkër jii yàlla I have my small family and God knows I am content I am not trying to prove to anybody ne this is who I am what you see is what you get uh, be nice I'll be ten times nicer be an asshole I will turn to the from I'll be the devil from hell that you wish never met waaye jamono yi ñu toll ci guddi yii muy yow muy yow yéen ñi may ko seetaan nii laay compté de muy keneen ak keneen dama ne xuloowuma ñiiroo ŋaayu ma dàggasantewu ma defantewu ma kenn xanaa su ma demee bay defante séena bu mi nee leen li ma si doon xeex pare naa ci moom su takkoon tey live la dafaa xeexaan teeg man xoolal su ma ñëwee ba seetaan ko dinaa ko comment na ko well done girl. keep doing you waaye su ootee jàmm dinaa oote Jama, su keneen ootee jàmm ma oote jàmm Jama. laa pee daal Jama dal manam for the rest of the world I don't care how you you sweeten your tea drink it I like mine black no sugar man nu mu gën a fooree gën ma arrangé waaye jamono jii ma doxul ci daray fitna xanaa lii kay yomba na so <laughs> I I I really don't understand lan mooy the problem here xaw ma lan mooy the problem me and bu we are not friends we are not age groups we are not mates but saa yu ma koolee si soxla dinaa dem li ma ko wa li ma ko wax nag ci live loolu ba tey nee naa tey laa ko gën a mën su ko keneen defee ma defal ko live hey génnal génnal saal waaye dama ne kii baalal ma maa ngi def live su ma paree ma kool la déedéet xuloo ma ak déedéet damaa def live rek su ma I'll call you ok all right xam nga li tax uh, Gambia metti Gambia sooy reyantee nit duñ dee bugg ñu nekkaat benn because dama foog I need nit ñu nekk benn dañ dee so many people to the extent hey hey génn go. génn hey out. My bintu gé Now you get a néeg please brothers and sisters this is my call and it's peace if you don't like my call I'm sorry but I am not doing none of that nonsense thing that you want me to do I am not holding anything for hostage I am not going to be enemy with anybody. I am not hating anybody. I am not going to be fooling around or fooling around just because that entertains you. I do me 100%. If you don't like it, tough. But this is just me. We're not fighting. Not with anybody. Dumoko So, Seynabou nag du suma noon moom su ma jàppee noon I understand her I definitely understand her because li fi xew bari na waaye man problème bi mooy man góob ma ne am naa koo xam ne jaral na ma ma def ko noonu ñaari nit rek mooy ki ma sosal ak ki ma yóbbu sëriñ ba keroog may sàngoo suuf bugguma taseeg ñoom ci àdduna sax ñu ne ma nanga def bala leen ma ma kii su ma ko I have to end eh, I have to end this life su ma jëkkee nga ne la toog moom kenn dinaan ataay dafa wéet mun taluma deneen yéen tam aw ma jot bala leen ma rek soo leen dematee ba maa indi ci drama wala ngeen feel like ne dama war a xuloo may leen ma jàmm gu toll ni duma xuloo Mr Gueye nga ne la ci biti di naan ataaya moom kenn ma toog fii tam di leeral yéen tam xam ne lii du dëgg du yoon lu maa reelal ah leeral soo sax xanaa jaaxle na mais leen ma jàmm quand jàmm laay woote si laay dox sëy bu mu ngiwàl def liggéeyam bi liggéeyam baa ngaa booming ah business baa nga dox ba bëgg a dee dem naa fa tey live ko live bu ne muut jënd fa 20 baax si onion ñëw toog jeegu xanaa du jeeg ji dañuy jeegaatu xoolal liggéey bu bari wax tuuti maa ngi nii toog defuma daray coow bu wax ji bari du man bu jom ji baree liggéey bi bari e kooku man a jaaña defuma daray wax ambiance lay woote wala ma ñëw tooj nit kaf ree dem toog xuloo yu maa kenn man jàmm rek lay woote mbaa yéen a ngi am jàmm ma ne mbaa yéen a ngi fiix e man maa ngi fiix de maa ngi fexe man mais mais mais vraiment vraiment man désolé naa de li may wax nag mooy yow mi ma yóbbu si sëriñ ak yow mi ma sosal am nga noonu waaye yow mi nga xam ne man maa yow ñoo doon reyante ba xaj tëdd génnam tëdd nga ñëw oote jàmm dama laa fekk si jàmm gi gis nga soo ma saaga woon ndeya bàyyi nga ñëw kool ma ne ma dama bëgg ñu nekk jàmm am naa business proposal lii ak lii nga ama contractor seetaan ngeen film boobu contractor Jason Statham this is me I'm Ami Statham I do business I don't do anything for nothing no anything I do is for something bills need to be paid there is no time to waste and even because nit danganjika am nit kadoga am alal ji nit ñee ma gënal alal waaye nit ñi ñooy ànd ak seen alal ñëw yéena ma ko lu ma ne jaaña ma e eh, xolal ma saf jep nak motax xolal bu len fiir bu ken mer bu ken eh, xolal xaar len ah xool doonal ma def as you guys know ñewuma pour xulo ak ken waye dama ñew pour leeral ne Seynabou du suma xarit du suma andandor duñ jee grand place duñ dee kabadu te yii yëpp ma tudda bu ko ci buggee dinañ ko def bem saf because you ma ken any apology or any explanation pour naka laay ronee suma life my life is my life I do what pleases me and me alone su ma buggee wax damaa wax li ma wax how you receive it is entirely up to you I do my thing my own thing so gis nga nit ku nekk dafa am ñoo xamante nii ñii nga mun a defal am ñoo dut mun a defal dinga nga reyanteeg nit ki ba àdduna yépp ne ñii duñ jubootati nga gis ñooñu dinañ juboo nekk loo xamante nii kenn du leen mun a séparé because sometimes in life foog nga laalantee nit ki pour nga xam nit ki mooy kan te kaa ma wax la du dañoo def yëfi bopp or anything nañ leen wax Sainabou dama gis jikko bu jikko bu nekk ci man bu ma gis ci Sainabou Mbye boobu daf ko xelmati ak man panka ñeme na defante ragalut defante loo ko wax suba balaa ngoon dina ut num la tontoo one way or other soo loolu jikko bu nekk si mën la laa gis ci moom ñun ñaari nag bakken yu guddal lañ dinañ mun a defante waaye fóonante bi du yomba waaye dama leen di wax rek ne xuloowuma kenn daggasantewuma kenn dewuma ñaani xooñ kenn mayuma ñeex maa ngi toog suma place di doxal suma doxal waaye ku ma oo ci jàmm ma dem ci euh, kum upset nag eh, that is not my problem seriously, that is not my problem. Man, I am 100% me. I do me. So if that upsets you, uh, then how much you pay? So, kon nii lay demee di wax ne Sainabou Mbye yaa ngi ci li nga nekk continuer ci li nga nekk man maa ngi ci li ma nekk continuer li nga nekk Fat So will always be my sister wax naa leen ko fii over and over again there is no way in a million years ma taxaw di reyante ak Fat Danso it will be upon my dead body it doesn't matter how upset she is su upsetee du man may kii upset because she is upset te xam naa ne waxut dara lu ñaaw ci life am bi about me moo tax duma wax dara loo xamante ni nit ñi dañoo dem di ko ko interpréter lay lu ñaaw parce que yéen yéen ay yóbbu yéen ay indi yéen ñii di seetaan am na suñu ma ñëw yéen a ma senn ma Fatou soo mu ngee def live mu ngee tudda sa tur ma seetaan live bi gis ne waxu ci dara ci man lu aay waaye moo tax ma ne xaaral ma setal parce que ni tuddee suma tur tudda turi Seynabou Mbaye Facebook la ñu bari seen xalaat dafa dem fu mu àggut kon rafet na ñu leeral su ma tuddee rek tudda turi bu Mbaye ñu leeral man nag ay ma contract I do shit for money I don't lick nobody's ass. I don't sugarcoat the truth. I don't doggo doggo. But if the price is right, I do the job right. Comprende? Anyways, I'm out. Timi sangé job ci fon madil dem simi ko pare Sama goor gi jité mama jul. Uti len jëkër nak. Yeen ñi amut. Uti len jëkër te sey. Ëlëk dina ñew defal len life bu ne moot for now. Timi say jot fokk ma dem nak eh, jox eh, ya rabbi nak walam nak. Ah comme yéen waa Facebook am ngeen seen wàll xaar leen ma jox borom mbaar mi nga xam ne du daanu gis nga àdduna dafa mel ni séntu asamaan jarut bu ku nekk fi nga toog di nga gis gis nga ñi la yàlla di booleel yaa xam ñii boroom taraanga la ñii amuñ taraanga waaye képp ku la yàlla booleel in àdduna allah kulli aal boo leen doon tojante ay bopp di bënnante ay but allah kulli aal seen part dynamite lii la yàlla dogal jàmm nu ci dara de kon nañ ñu nangu dogal ndax mooy mbir yàlla waaye ma ne séena bu suma rakka la we leave it to that su ma ooyee ci jàmm dinaa ko fekk si keneen su ma ooyee ci jàmm dinaa ko fekk si waaye ku ma oo ci ay xoolal baalal naa la dafa lu la saf duñ geer ma ak yéen bàyyi naa geer xanaa li jeex na neex na wal salaam alal musalina walhamdulilahi rabbil alamin jeexal naa ci yal na yàlla def jàmm lu jàmm jàmmaa ko gën bu leen nangu kenn yàqal leen seen olala man de duma ko nangu bu leen ko nangu man kenn du ma yàqal sama olala waxtu bi moo doon toog ci boori Mr Gueye mu tëddal eh, eh, boppam bi ci suma ko ma xesa dal ko di ko raaye nii ah muy dem baara kum baara kum ngeen di ma ko soxar yi waaye Facebook yi na bon naan ma dugal ci live bi mais quand même fata tamit bàyyi leen suma sista mu free ah su waxee dara sax baax na moo ko sañ a wax mooy suma sista ñoo bokk maama Sali Jaata lu ma ci mun dara kon jeex na noonu la deme waaye fi mu nekk make a go give Allah it's it's own as well oh because I've been giving people's own all day let me go and give Baba God as well because he's been ever so so I am so blessed What am ma ne hatta he is my provider moo yor suma cumbukaay bo ma naree daaneel daanu bu ma la naat galgalee nga daanu say tànk dama jaamunu ci dara yàlla ko def xoolal du ne maa man waaye ma saf gaañ ku nekk nag ku mu nekk nga jóg fëgg sa dina ne maa fi ne waaye xoolal fii kenn newu fi man kenn naa fi nekk moi yaa rab bi mooy moom kenn ki moo fi nekkal ba ñun ñëpp ñu nekk bi fi ñun ñëpp nekkee maa leen puus yéen ñëpp ngeen taxawee laa gos la ma ñëw taxaw in the middle xanaa du maa meer xanaa duma maa foox <laughs> guys thank you so much for joining this live um, It's, it's nothing major. It's not a problem or anything. We're not fighting. It's just a little bit of layer so that people understand. uh, just because defon now life, uh, the, uh, the, the, the, the, again saying about doesn't mean that she is my enemy. Just because defon now life work you, yubari, she is, I am her enemy. Suma bugee def enemy is fine. Why man pare na ci lolu bim ote jam, bel ñew, lenen lu ñew ñu ñu ñu def ko nim waré rek. Why for now, it's peace and quiet.